sant ak gërëm ñeen na leen yéen ñi safa seetaan Feeling Dakar TV di gën a fas yéene kaay yi bokk na ndaje bi nga xam ne ki di njiit réew beeg moo ko présidé file ci jam ñaajo ginnaaw nag bu mu dalalee ay ndaw yu bëri jëmale ci wàllum xëy bi ba tax na rek moom ci ay kàddum tamit ektiwaat na jëmale ci ñi nga xam ne nag ñooy étudiants yi nga xam ne jamono yi ñoom ñen ne ko ay jàmmaarloo seen biir yeneen kàddu yu mu yëkkati bokk na tontu bu mu tontu ki nga xam ne nag mooy président Ousmane Sonko ginnaaw bu ñu nemmee ko mercredi bi ñu génn nag après déclaration bi nga xam ne kii di njiital Pastef Ousmane Sonko def nañ ko dinañ ko gën a yaatal leneen lu ñuy yaatal tamit bokk na réflexion bi nga xam ne euh, kii di euh, nekkoon fi euh, premier ministre ay jamono kii di Aminata ture nag génnee na ñeent ponk yoo xam ne nag suñ si sukkandikoo li nga xam ne nag mooy xëy gune yi dinañ ko saafaral ba tax na rek ñu jëlal leen tamit ay jàmmaarloo bu métti bu ñu nemmeeku woon démb fële si njaareem li maamulaay ci diggante ndaw ñi ak ñi nga xam ne nag ñooy takk der yi beneen kawteef bu ñuy jëli fële ci Vélingara ginnaaw bu ñu nemmeekoo nag ab drogue bu ñu fekk ci benn kër chef de quartier ba tax na jamono yi ñuy wax yéen moom nag jot nañ ko teg loxo ba tax na rek dinañ leen tamit waxal li nga xam ne mooy coow lu euh, faux médicament yi nga gis ne depuis boobu ba léegi chaque jour ñu am ay révélation ci noonee nag ñu gis ne yëf yi nag dina gën a gudd dina gën a euh, li nga xam ne mooy xumb ginnaaw bu enquêteurs yi nag tegee euh, loxo benn liste bi nga xam ne ay hôpitaux privé ak publique ak clinique yi nga xam ne tamit jot nañu liggéeyal ak kër gi di Dayane ko SARL bi nga xam ne nag moom mooy jox lépp lu dem ci wàllum équipement sanitaire ñu indi leen li nga xam ne mooy point Covid 19 bu bés bi jeexalee flash bi li nga xam ne mooy tàggat yaram ngeen taaxirlu ma faram fàcceel leen di gën a fës si yéenekaay yi. asalaamaaleykum internet yi comme ni ma ko waxee si jëlbeeni xibaar yi ñu gis nag ki nga xam ne mooy président Ousmane Sonko génnoon ab euh, def déclaration bi nga xam ne jëmaloon na ko nag si cofeel bu mu am si euh, ndaw ñi ba tax na rek moom tamit waxoon na ci li nga xam ne nag mooy procès boobu mu bëgg ñu gaawal ci diggante ak moom xale bi di aji Sarr yeneen kàddu yu mu yëkkati tamit jëmle woon ko ci nguur gi ndax nee na euh, ñi nga xam ne ñooy nguur gi nag duñ ko xoqatal duñ ko xañ li nga xam ne nag mooy liberté ba tax na rek mu war a mun a dem ak dikk si noonee nag mu gis ne suñ ko nar a defaatee yenn yi nag dinañu génnaat jàmmaarloo ak moom ba tax na rek ci kaddu yooyu nag kii di uh, njiitu réew mi président Macky Sall nag moom nag uh, bàyyiwu ko benn yoon ginnaaw bu mu doog dalal nag ay ndaw fële ci uh, centre de conférence bu Diamniadio bu ñu duppee Abdou Diouf moom nag ab conseil présidentiel bi nga xam ne da ko jagleloon lépp lu dem ci wàllum insertion ak xëyu ndaw ñi ginnaaw bu mu yëkkatee kàddu nag jëmale ci problème yi nga xam ne boobu léegi ñoo ngi ko koy wax moom nag dafa mel ni Euh, dégg na leen ba tax na rek dina génne koppar bu bëri euh, def ko ci li nga xam ne mooy xëyu ndaw ñi mais nag mu yëkkatiwaat ay euh, kàddu di euh, jëmale ci ñi nga xam ne nag ñooy euh, étudiants yi nga xam ne dañ leen nemmeeku ay bés yu ñu génn si université yi ñuy am ay jàmmaarloo yu métti seen digganteeg euh, seen biir ak ñi nga xam ne tamit ñooy takk der yi ba tax na rek moom nee na foofu noonu du champ de bataille ba na rek moom dinañ ci jël ay matuwaay yi nga xam ne nag nguur gi dina ko taxawal ay bés yi nga xam ne ñoo ngi si dem ci ginnaaw noonee tamit gis nañu folklore bi nga xam ne nemmeeku nañ ko woon foofu si noonee nag ñu gis njiitu réew mi gënoon dalal ñi nga xam ne nag ñoo ko yëkkati ay kàddu jëmale di ko tagg dëgg ba tax na rek loolu euh, terewul gis nañu tamit xumb xumbaay bu fa am ginnaaw bi nag euh, bi nga xam ne liggéey yu ndaw ñi ñoo taxoon ñu organiser boobu le ndaje ndaje boobu tamit euh, kii di njuuti réew mi yëkkati na ay kàddu jëmale ci président Ousmane Sonko di ko xam ne nag li nga xam ne nag mooy état de droit dañ koy doxal fii ci réew mi du ñu nangooti kenn di yëkkati ay kàddu bala kenn di diir mbagg ñi nga xam ne mooy gouvernement bi suñu jàppee nag li nga xam ne nag mooy nguur gi dañu faible ñoo ngi nax seen bopp ba tax na rek lu fi amoon ay bés yu ñu génn ñu gisoon jàmmaarloo yu métti si diggante ndaw ñi ak euh, takk der yi ba ay bakkan rote ci loolu nag kii di njiitu réew mi nag tontu na le président Ousmane Sonko ba tax na rek nee na du ñu bàyyeti kenn di yëngal li nga xam ne nag mooy réew mi ba tax na rek dañ leen di bàyyee internet yi ngeen euh, jàngat li nga xam ne nag mooy ñaari discours yooyu génnee ci gémmiñu ki nga xam ne mooy président Ousmane sonk ak euh, njiitu réew mi Macky Sall ginnaaw nag bu mu wéyalee nag di doxal li nga xam ne nag mooy xëyu ndaw ñi desandi rek ci xëyu ndaw ñi bi nga xam ne nag dafa nekk ab débat politique bi nga xam ne ab débat public euh, jamono yi ñuy wax ak yéen fii ci réew mi euh, foofu romb rek ñoo ngi waxtaanee li nga xam ne nag moo jëm ci wàllum xëy bi ba tax na rek ki nga xam ne nag moo fi jiite woon euh, bànqaas boobu di conseil euh, économique environnemental et social di euh, soxna Aminata Touré nekkoon fi tamit ab première ministre ci gouvernement wu Macky Sall moom nag ginnaaw bu ko dalalee am na ab xalaat bu yaatu jëmale ci li nga xam ne mooy xëyu ndaw ñi ba tax na rek ñeenti ponk rek la teg ci li nga xam ne mooy table bi suñ ko wéyalee doxal ko amaana li nga xam ne nag mooy xëyu ndaw ñi dina féetee boor ba tax na rek dañ leen di jukkil li nga xam ne mooy ponk yooyu génnee na ko première ponk ponk bi mu njëkk a génnee nag moom dafa ne euh, li nga xam ne nag mooy euh, ñi ngi dem chômage technique ak ñi nga xam ne dañu am liggéey ba pare nañ leen préserver li nga xam ne mooy seen euh, liggéey ñi dem chômage ñu indiwaat leen instauré waat leen ci li nga xam ne mooy seen place pour li nga xam ne nag mooy xëy bi gën a jug leneen lu mu yëkkati tamit mooy maanaam gis-gis bi nga xam ne am nañ ko pour créer ay liggéey ba tax na rek dañuy faral di wax rek li nga xam ne mooy état amul pour euh, joxe liggéey mais day mettre conditions yi nga xam ne euh, pour euh, ñi nga xam ne ñooy secteur privé yi mun na di embauché ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi ba tax na rek moom moo ngi xamal li nga xam ne mooy 70 pour cent wu population sénégalaise bi nag ñoom am nañu lu lu motul 35 euh, ans ba tax na rek war nañ ci bàyyi xel ñu lu ñu bàyyiwaat xel leneen tamit ñett ponk bu mu génnee euh, mooy euh, am li nga xam ne mooy suñu koom ñu war ko jëmmal jox ko li nga xam ne nag moom la yellool ba li nga xam ne nag mooy xëy bi ñëwaat ci li nga xam ne mooy réew mi stabilité amaat ci li nga xam ne mooy xëyu ndaw ñi beneen ponk bu mujj bi nag nag mooy programme yi ñu gis ne euh, njiitu réew mi moom ngi koy yëkkati boobu ba léegi dafa war a nekk programme yoo xam ne day dëppoog ak nekk nu askan bi nekk ni euh, dundu ñi nga xam ne euh, ñooy gune yi nekk ci biir réew mi ba tax na rek Aminata Touré nag yëkkati na fa yeneen ponk yu bëri bëri yi nga xam ne suñ si sukkandikoo rek li nga xam ne nag mooy xëyu ndaw ñi jamono bi ñuy nekk nii nag nga xam ne mooy tere nalaw ki nga xam ne mooy njiitu réew mi nag dina saafarawu ñuy wax leneen nag beneen kawteef bu ñu nemmeeku ci kaw kaw autoroute à péage bi euh, benn ambulance hôpitalu Pikine nag moo fa lakk-lakk bu métti ci ginnaaw noonee nag euh, bu fukki minute ak juróom jotee rek euh, ginnaaw lakk bi ci loolu waa sapeur pompier ñëwee ci lieu bi mais tax na fekk na nag li nga xam ne nag mooy oto bi lakk na ba jeex ba tax na rek li nga xam ne nag mooy ab enquête ñu ngi koy ubbi jamono ñuy wax ak yéen nii nag kenn xamul lu sookee boobu boobule lakk-lakk jëmale ci ambulance hôpital bu Pikine ba tax na rek dinañ leen ko toppal lu ci mënoo a ruusane rek dinañ leen ko indi si suñu yeneen jotaayu xibaax leneen lu ñuy jëli nag. bokk na euh, li nga xam ne moom la ñu nemmeeku fële ci euh, Vélingara dëkk bu ñuy wax euh, Sarekoli Sarekoli nag ab chef de quartier chef de village bi ci boppam la ñu teg loxo ginnaaw bi waa gendarmerie wàccee ci këram nag fekk ci ginnaaw cour bi. un kilogramme bi nga xam ne nag ab yamba la ba tax na rek si nañ ko tegee loxo ci rek loxo boobu nag ñëpp di laajte li nga xam ne mooy euh, yamba boobee Sori Diawo Sori Diawo nag mooy chef de village bi euh, ndax moom moom moom lii di euh, drogue boobee bala dañ ko def ab piège lu ci mën di am rek li nga xam ne mooy enquête bi ubbi nañ ko waa gendarmerie dinañ ko topp boobu tamit dinañ leen ko toppalaat lu ci mën a rusandee rek ci ay leeral ñu indil leen ko si ñeneen jotaayu xibaar ñu wax tamit ci li nga xam ne mooy euh, faux médicaments yi nga xam ne ay bés yi ñu génn juróon na coow lu bëri ci biir euh, réew mi ba tax na rek ñu gisoon li nga xam ne mooy seen avocat maître El Hadj Diouf amoon am euh, point de presse indi ay leera jëmale ci équipement sanitaire yooyu xam ne kër gi di daa ay co SARL ñoom ñoo koy joxe ci réew mi ginnaaw nag samedi bi ñu génn bu ñu tegee loxo fële ci Padoa seen maison de dépôt boobu ay équipement yu bëri yu fa fekk boobu ba léegi nag wax ji bëri ba bëgg a dee mais nag li nga gis mooy enquête gendarmerie gendarmerie am na lu ci bees lu ci bees nag ab liste boo xam ne moom la ñu teg loxo jëmale ci hôpitaux yi ak euh, cliniques yi nga xam ne ay clinique privée la ak euh, hôpitaux yi nga xam ne ay hôpitaux public ak privé la yi nekk ci biir réew mi ñoom nag jot nañu liggéey ak kër googee na rek yëf yi day jël beneen ampleur beneen tournure ci hôpitaux yooyu nag ñu mun ci lim li nga xam ne mooy hôpital Abass bi nga xam ne ñëpp ràññee nañ ko ci réew mi district ouest Gaspard Camara bi xam ne tamit ab hôpital public la beneen hôpital bu ñuy nemmee nemmeeku Youssouf Youssouf euh, Mbergane bu nekk fële ci euh, Rufisque beneen clinique buñ ci euh, nemmeeku tamit clinique Rada clinique Oasis Prodiche farma ñoom ñëpp jot nañ ñu liggéeyat ak kër gi nga xam ne nag jamono yi am na coow lu bëri dem ci wàllum faux médicament ba tax na rek dañ leen di toppalaat li nga xam ne mooy euh, xew-xew boobu lu ci mën a rusandee ci enquête gendarmerie rek nañ ko indiwaat si suñu yeneen jotaayu xibaax ñu ñëw jox leen li nga xam ne nag mooy euh, point Covid 19 bu bés bi euh, sur 1225 tests réalisés. 47 ñoom ñoo ñëwee amee mbas bi di euh, Covid 19 19 cas contact la ñu nemmeeku 28 yi ay cas transmission communautaire la 67 patients nag jamono ji euh, jot nañu wér ba ñibbi nañu seen kër 10 cas grave la ñu nemmeeku démb si jeudi bi nag amul benn euh, bakkan bu ci rotee ci mbas bi lee bi mbas bi duggee ci réew bi léegi nag 40 022 la ñu jot a déclaré positif 38 736 yi ñoom jot nañu wér ba tax na rek 1097 doomu aadama nag ñoo si jotoon ñàkk seen bakkan ci euh, mbas bile jamono yi ñuy wax ak yéen nii nag 138 patients ñoo nekk sous euh, traitement di leen di wax rek li nga xam ne mooy mbas bee ngi ci réew bi ñuy saarloo li nga xam ne mooy mesure barrière yi ñu jëlee fële ci ministère de la santé et de l'action sociale ñuy jeexeele rek euh, li nga xam ne mooy flash bi tàggat yaram indil leen si ñaari ponk rek jëmale ci làmb ji ginnaaw bu ñu nemmeekoon nag li nga xam ne mooy bëre diggante ëmb seen ak Lac de Guiers 4 avril bu ñu weesu ñu gisoon nag par euh, décision arbitrale ñu li nga xam ne nag mooy décision bi Lac de Guiers euh, kii di euh, Taïchi nga nag di Eumeu Sène demoon na def ab recours fële si CNG ci ginnaaw noonee nag waa CNG nag ñoom génnee nañu seen verdict ba tax na rek confirmé nañu li nga xam ne mooy victoire Lac de Guiers 2 beneen déception bi amateur di am ci làmb ji bokk ci combat Balla Gaye Bombardier bi nga xam ne naroon na am le 26 juin bi nga xam ne ñu ngi ko jëm ba tax na rek li nga xam ne mooy làmb boobu date eh, loolu nag ñu ngi ko jëlee ci li nga xam ne mooy le quotidien source a ba tax na rek internet yi lii laa leen indiloon ci ay xibaar ñu joxante dig dajee ëllëg ak jàmm